jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci tomb bu jëm ci wàllu commerce jënd ak jaay walla yaxantu pour am ca dara <coughs> tolloon ci tomb bu am solo mooy bi borom bi di wax te Omar ibn Khattab dégg ca wax ja ne ñaari barab bu sañoon ca lay faatoo benn bi mooy fekk ko ca jihaad ja benn bi mooy mu fekk ko ca marché ba <coughs> mu firee ko nag wa axaruuna yadribuuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah daal ne wa axaruuna yuqaatiluuna fi sabilillah ne kon faqaroo maa tayassara <coughs> nee na jot day ñàkk ci ñaar ka solu mu génn ka solu mu génn ak ka nekk ci jihaad ja mbokk yi commerce sibuñu ko commerce téerewuñu ko commerce sibuñu ko commerce téerewuñu ko lislaam téerewul commerce ku yàlla yónni woon terewu ko euh, yàlla am na lu mayoon Quraysh lu jiitu sallallahu alayhi wa sallam di gën jamono Quraysh amoon nañ commerce gu mag fi chitaa ak commerce gu mag fi sayfi léeg-léeg ñu dem ila Sham léeg-léeg ñu dem ilal yeman waaw loolu commerce gu rëy la woon waaw min Makkatal Mukarrama ila Sham wa minha ilal Yaman daan ko def nag ci période yu am solo boo demee tey Italie fekk fu ñu am Cheikh Bekkaay Seen yàlla yàlla sàmm leen dafa am ñu ay été ete bu jotee dangay gis ku jóge dëkk sàngam dem ca fa ñuy été ji mu sori lool léeg-léeg bu ete bi neexee booy ñibbisi indi ci ay euro <laughs> lu faj soxla wala indi ci ay euro lu àggale ngoro gi wala indi ci ay euro lu àggale bâtiment bi walla indi ci ay euro lu jënd oto ñoom boo leen waxee loolu màndaxe koog rilata shitaay wa sayf ñoom darañ ko teel a dégg waaw ah damay été ji nga dem ca été ba tabaarakallahu booy ñëw indi dara Quraysh dañ doon def rihlata shitaa'i di def rihlata sayf chita ci boo ko doon wax ci pénc mi pour nogoy dégg la mooy lolli lolli nga xam ne gerte yaa ngi samp bay ñor si mënat na mënat na cee buddi eh, mbaxal imaam lay Ndaw <laughs> eh, ñebbe jaa ngi ñor mën nañ cee sëqaat waaw sëqaat moom la waa bala bawal di wax dem ca tool ya dagg ca ñebbe ju ñorut ja waaw tubarkalla bu fekkee dañ koy lekk te togguñu ko ñu de ko xulaas <laughs> waaw ma yëm foofu balaa imaam di xëy si <clears throat> euh, sayf nag mooy noor ca ñoom ndax àdduna dañ koo xaaj ñeenti xaaj noor nawet li cooroon noor nawet li cooroon ñeent yooyu lañ ko def euh, xam naa sax ci français am na ci mais mënuma ko wax ci français sama jàng ak fa ndax damaa teel a bàyyi <laughs> damaa teel a bàyyi borom baa ngi wax ci alxuraan commerce gu rëy googu borom bi mi ngi wax ci alxuraan commerce gu réy googu ak nan la koy wal bi waa Quraysh ci barkeb sallallahu alayhi wa sallam ba commerce googu dutul jar jógati gis nga loolu tax na ñu yor wàllu pénc ñu leen tuddee état sunu sunu xuusoon ci njàngale yooyu boole kook yiñ jàng penc mi kenn du ko àttan ni ni alxuraan jàngale rixlata chitaay wa sayf walbati ko indil leen beneen programme bu bokkut ak rixlata chitaay wa sayf ba noppi programme bu ñu rengir ko mu indi loo xam ne moo ëpp li rixlata chitaa yi doon indi moo ëpp li rixlata sayfi doon indi waaw bi barakatihi sallallahu alayhi wa bi ishaaratihi wa bil ayaati al waaw allahu akbar borom bi dafa caa wàccew saar ñu tudde saar wa Quraysh ñu tudde saar wa Quraysh waaw Quraysh benn famille fa bu alxuraan tudd na suuratu Quraysh waaw <laughs> lu am solo la borom bi bismillahi rahmaani rahim li ilaafi Quraysh ilaafihim rixlata chitaai wa sayf falyacbudu rabba haadha albayt alladi atamahum min juu wa amanahum min xawf mooy mooy saaru Quraysh laa ya bariwut waaye njàngale ma bari na waaw su ma koy firil gone ya firim gone ndax léeg-léeg ma firil gone ya ca daara ja firim gone bu ma koy firil firim gone dama naan leen Quraysh daa am lu ñu miinoon ba defe ne ku ca jaarut doo tekki fi ne sunu penc mi am na yooyu dañoo defe ne ku ko defut doo tekki waaw tekki sax mooy lan tekki sax mooy lan docteur Massamba Gueye tekki mooy lan mu ndax dañoo takkoon ba war a tekki wala tekki moom ci sam réew mooy bari xaalis walla tekki cim réew mooy am ay kër yu bari déedéet tekki ci am réew mooy jariñ sam réew lu nit ñi mën a teg seen loxo waaw moom la firikat ba ca téere ba wax ne mooy dund gu barkeel mooy dund gu barkeel waaw ma ne xale yi borom bi daa wax ne Quraysh de am na lu ñu miinoon ba defee ne balaa kenn tekki danga nga caa jaar ñu ne ko sunu borom lu Quraysh miinoon mooy dañoo miinoon di tukki ci chita buñ dëlsee bu fu jotee ñu tukkiwaat jële dara màkka yóbbu chita yóbbu yóbbu sham euh, jële saam indi màkka jële màkka yóbbu yaman jële yaman indi màkka loolu mooy commerce gu am solo gu rëy googu ñu daan def alayhi salaatu salaam mas na caa dem benn voyage à l'âge de 17 ans la ne baayam Abu Taalib kër gi de ni ma fi nekke dama ko bëgg a soppi mu ne ko loo fi nekke mu ne ko xanaa toog ñu ma yóbbaale ci dépense mu ne ko ah mu ne ko ak sa bi 17 doo toog ba am 25 ans ba wala 30 mu ne ko loolu du jomi góor góor du toog ci kër gi ñu ko yóbbaale waaw ñu la yóbbaale Yara Ndaw le grand yàlla na ko yàlla yokk wér nee boo duggee ci oto nit ñu dugg ñëpp di kaas nañ dem dañoo naaje am ku ne cell daa paasut <laughs> nee na ku ko ne cell daa paasut dañ ko yóbbaale ndax ku ñu yóbbaale sañoo kaas waaye yonent bi ne mbaayam xëy tëdd ci kër gi mun a mun a mun a ko jeex na tey waaw kenn du yóbbaale mbokk yi gis nga roq soosu li fi yonent bi jàngale rëy na à l'âge de 17 ans léegi nag nooy def mu ne ko xanaa ànd ak yéen mag ñi bu ngeen faggoo ma faggu fa bu ngeen cotiser ma cotiser mu jax tàkk ma def sama loxo ci kër gi ni ngeen ko ciy defee waaw bu dépense jotee pour togg añ ak reer ak ndékki ma def bu bu bu bu bu jotee bu ko bu ngeen joxee vingt cinq ma joxe vingt cinq waaye daal tëdd ci kër gi ñu ma yóbbaale moom mu ne ah, mu ne leen jeex na tey ndeysaan Abu Taalib daal di koy wutal marchandisum gone <laughs> Abu Taalib daal di koy wutal marchandisum gone suñuy nopp waaw gone la ca taayir booba ndax dix-sept am waaye cey waaw xam ngeen fa xissa ba mu mujj mu ne kon Quraysh dañoo miinoon rixlata chitaa yi nun lañ miinoon rixlata cheyf sunu borom nag daal di indi nag programme bu bees ci commerce Quraysh googu goo xam ne mooy gën a jàppandi ci ñoom te itam mooy ëpp rendement te itam mooy ëpp noflaay te mooy gën ca dëkk ba lu xew muy leen fal yaabudu rabba hadal bayt fal yaabudu rabba haadal bayt ndeysaan gis nga baytu bii ngeen am mu ne ah mu ne dundal leen ko jaamu leen yàlla néeg bi dund ngeen xool jaamu leen yàlla ni rabba haazal bayti ngeen xol gis nga loolu cim réew tam mooy réew mu ne sunu borom def na fa lool loola buñ ko bàyyee xel suqali réew ma buñ ko gannaawalee dem tubaab bi nag léeg lekk ay monument la koy def waaw ay xërëm la koy def tudde leen ay tur waaw te su boobaa rabba haazal bayt dafa dul nekk bu fa rabba haazal bayt nekkoon rek tabarkàlla sunu jàkk yi su dundoon suñu jumaa yi su dundoon falyaabudu rabba hadal bayti feeñ fa malheureusement nit ñaa ngi xëy di jëndee ka jaay ñoom Ibrahima Njaay réewal mi ñoom Moussa Bey ngi xëy di dem waaye falyaabudu rabba hadal bayti bu fekkoon koñ bi yépp ni ñu jullee ajuma la ñu jullee fajar bu fekkee koñ bi yëpp ni ñuy jullee àjjuma la ñuy jullee tisbaar bu fekkoon koñ bi yëpp ni ñuy jullee tàkkusaan lañu li ñuy jullee àjjuma la ñuy jullee tàkkusaan timis a noonu sunu borom nee na day am luy sappiku ci koñ bi jaar ci commerce gi dox ba ñëpp yëg ko ndax liy julli si àjjuma jàkk ji fees ba ca mbedd ma waaw ñooñu fu ñu nekk ci ci fajar fan lañ nekk bi tisbaar jotee ñooñu ñëwoon ci ajjuma ji ajjuma samedi fees ajjuma tisbaar mu fees del samedi nga am sàppe genn wàll ana ñu nekkoon ci ana ana ñu ana nit ñi c'est une question une question pertinente waaw ma posé leen ko ana ana nit ñi fal ya'budu rabba haadhal bayt yàlla mu ne noog néeg boobu ngeen am ci koñ bi te ma moom ko lu leen ko tee dundal bu ngeen koy dundal rek di dund su ngeen ko dund lu nag dangeen am problème bu rëy te du ngeen dund mu yéen mu ne maa la ko wax su ngeen ko dundalee ah at'amahum min ju' wa amanahum su ngeen ko dundalee ma sécuriser leen ma may leen jàmm bu néeg bi dundee mbokk yi bu ñëpp doon julli si jàkk ji yar sunu doom yi ba buñ jógee nu jóg yar sunu soxna yi ba buñ jógee nu jóg tàntay xale yi di jóg nii ni yi xale yi di jógee <laughs> tàntay xale yi nag mooy deuxième femme <laughs> tàntay xale yi mooy deuxième femme waaw xoolal bu ñëpp doon ñëw ci jàkk ji formation yi ñuy def ci koñ bi naka la koñ bi di amee ay agresseur du mën a nekk waaye su fekkee ñépp ay jóg dem ca jàkk ja bàyyi gone yu ñuy nelaw buñ bu ñu yeewoo sëlmu wuti lu ñu am léegi tey ñuy agressé ndax bëgg lu ñu am fal ya'budu a hadal bayt ngeen baal ma ci ton bi parce que teel na te xëy na ñëpp yeewoo guñu euh, wax ji wërta kowee noonu waaye je suis un peu énervé peut-être ngeen mën ma ko baal waaye wax naa dëgg nag <laughs> ngeen baal ma fal ya'budu rabba hadal bayt mu tax sëriñ Cheikh jàngalekat ba seet sëriñ Cheikh jàngalekat ba mu ne su ngeen dundalee albayt su ngeen jaamoo rabba hadal bayt ñu ne ha mu ne at amahum min joo mu ne ma may leen dogu mburu suñ Cheikh koy firee noonu yàlla mu ne ma may leen dogu mburu wa amanahum min xawf ma may leen jàmm ju ko xàmp ndeysaan Cheikh cey waaw waaw ataamahum min juu nee na ma may leen dogu mburu wa amanu min xawf ma may leen jàmm ju ko xàmb mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk yéen ak seen njaboot maa ngi ci mbirum commerce maa ngi ci ni ko borom bi jàngalee ci alxuraanul karim maa ngi saa yuy tudd Quraysh nii laa ko doon fiir la gone firim gone waaw firim gone waaw bu dee firim mag nag ñu xaar ko ca tafsir ba insha <laughs> waaw waaye lu am solo la fal yaabudu rabba hadal bayti dëkk bari jàkkaaki jumaa de waaye ajjuma de dana fees del waaye samedi du fees ci fajar tisbaar du fees bu tàkkusaanee tem am takk nag dana fees samedi ci tàkkusaan tem am ak takk bu fekkee xale bu jigéen bi ñuy takk papaam borom barke la waaw papaam borom barke la dana fees bu papaam nekkul borom barke nag léeg-léeg jàkk ju du fees ñu naan sàllaaw buñ ko yëgle woon fekk <laughs> yàlla nu yàlla dimbale suñu réew mi ni mu neexee tabarkàlla kon maa ngi ci commerce falyacbudu rabba hada al beyt alladi atamahum min juu wa min xawf waaw atamahum min juu ca Quraysh borom bi ca sooratul Qasas saar doon nettilee dundug Muusaa ga waaw dundug Muusaa ga alayhi salaam ca saar walla borom bi wax awalam nu makkin lahum xaraman amina yujba ilayhi thamaraatu kulli shay ci alxasr ay cinquante sept borom bi di wax waa màkk lim leen defal bëgg ñu fay naar bi xorom te waa màkk fayuñu naar bi xorom mu ne leen dama leen defal benn xorom ñu ne waaw mu ne xorom bu am sécurité ma sécuriser leen ko gis nga loolu tam ci commerce dafa am solo trop waaw mooy al amn wa tijaara mooy sécurité bi am ci dem jëndi ak sécurité bi am ci ñëw jaay xaraman amina nee na xurum boobu ma leen defal yujba ilayhi thamaratu kulli shay lu fu mbir meññ ci àdduna bala ngaa am loola neex jaayi ko makka sunu borom maa leen ko defal wala yaa nu ko defal yaa rabbi lakal hamdu kama yambaxi li jalalik waaw fu waay baye rek bala nga am jàmm jaayi ko makk fu waay xaftaan bala nga am jàmm jaayi ko makk waaw waaw gerte caaf gis naa ko Makka waaw euh, Saara Mansour Chari Mansour la ñu wax waaye ñoom ñu Saara Mansour gis naa fa gerte caaf waaw jënd naa ca sax <laughs> Imaam lay Ndaw gis naa gerte caaf Saara Mansour jënd naa ci sax nag samaraatu kulli shay'in mooy loolu maango am na fa papaye am na fa ndeysaan banaan waxi noppi waaw tubaarkàlla raisin kulli shay'in waaw lépp lu meññ ci àdduna rek ba demee màkk am na fa am na koko waaw màkk am na koko <laughs> yàlla nee na moo defal loolu waa Quraysh te mooy ba ñu tàmbalee doxal fal yaabudu rabba hadha al bayt gis nga loolu tam mbokk yi ci wa amanu min xawf bu am réew amee sécurité région am sécurité département yi am sécurité jaaykat yi ñemee ñëw jaayu si jëndkat yi ñemee ñëw jënd si bu sécurité amut nag commerce mun ta dem waaw sécurité la ci boor yépp waaw sécurisation yooyu fekk nu lañ ko waxee yooyu mën naa tax bu bu mëgee njaay bayee ca nooto sobleem ñu mën koo sécurisel soble soosee ba du nëpp du fuus du lamm waaw loolu la alxuraan di jàngale ci wàllu commerce ci ñaari laay ci ci saar wii ak laay yi ci laay yi ma ci tafal nii ca suuratul xasas waaw waaw mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot mbirum commerce gis nga kon fi ko lislaam wàcce wàcc waay bu am solo boobu surtout Quraysh waaw asxaabu rasul sallallahu alayhi wa sallam bëri na ci ay commerçant asxaabu rasul yi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ay commerçant yu nekkoon ci seen biir ñu xamoon leen ci commerce boo jëlee Abdurahman ibn Awf Abdurahman ibn Awf waaw commerçant bu mag la woon Abdurahman ibn Awf commerçant bu mag la woon te bokkoon ca saaba ya jóge Makka ñëw ilal Madina mbokk yi. Euh, Abdurahman ibn Awf à suivre demain incha allah même heure et même fréquence waaye bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 noo ànd ci suñu jotaay bi nga xam ne lundi lay am ak mardi jataay bi 8 lay tàmbali 10 heures lay jeex jaajëfal nañ leen. ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i bëgg leen a firim fàncal xibaar yi ci tubaab firim fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ña naan doon toxtaani moo di seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu